waaw gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 Production ah, ñu am lépp tawfeex sëriñ bi mën a may. gën noo gàtt noo yi kon loolu nu yonent bi digal lu nekk nu def ca ndànk loolu mooy yoon wi nga xam ni moom la lislaam di woote ci lu ne amul lenn lu lislaam amul kàddu lu ne lislaam am na ca kàddu lii nag day li mu gën a am kàddu. ndax loo xam ni bu ko waa ji yoree mi ngi ko bëggee nu ko neex jëfandikoo ko ci jàmm yi sëñ bi loolu responsabilité bu rëy la yow mi koy joxe seetaat ko bu baax waa ja nag daal di lay ni la àggul àllaaxira ak a juum ba bu ko neexee sàcc ci bu ko neexee fen ci bu ko neexee njuuñ njaaj ci déedéet sàcc dañuy àtte rek fa ñuy sàcce waxuñu li ñu sàcc xanaa xamu leen sàcc gi gën a bon ci àddina mooy sàcc ay wate yow jàpp nañu nit daa sàcc am xar lu xar di jar bariwul yow nga sàccum réew kenn loolu yàlla du ko réglé xanaa yàlla dafa amatul bu yàlla amee wallahi di nga xam ne sàcc nga lu rëy kon kenn du ko sàcc dañuy jub tey jubal ngelawaay mbokk mi. yow mii nga xam ne fas nanu lay yéenee fal ci fan yii di ñëw nga tudd président de la république ëllëg li nu lay dénk mooy nga ragal yàlla boo ragalee yàlla ñëpp jariñu lu nekk nag dig ngeen ko ci bi ngeen nuy wër nee nga di nga yombal dund bi nee nga di nga indi métier yi nee nga di nga defar transport bi nee nga di nga defar pañ mi nee nga nee nga nee nga yu baree bari waaye wallahi bi nu gën a aajowoo te moo yor développement te doo ko tudd mooy defar sistis bi maanute maanute mooy dafa développer réew dafa am benn kilifa ci kilifa réew mi ñu yàlla dogal ñu am dara damay waxtaan ak moom benn bis Maroc gii nuy fajoo ji buñ dee feebar dama jàng benn reportage ci Maroc ñu di ko def ci wàllu médecine ñëpp jànge Sénégal kon xam-xam baa ngi fi lu waral ñuy dem Maroc di fa ji te bi ma laajee loolu lu ko waral seeni bayar di foo yi nekk Maroc ñoo financé ay clinique ay boroomi xam-xam machine bu ñu soxla ci àddina bi ñu jënd ko indi lu tey defu leen ko yéen itam mu ne ah ci Sénégal nga defar ko ñaar ñu jàng lool yore doctorat lekk ko dem ci tribunal ñu àtte ko nga ñàkk kooku lu lu ko tee def loolu justice bu dëgërul kon boobu développement noppaloon lool état ci tabaxi hôpital noppaloon lool ci ci pañ mi da koy noppal ndax waa ji dina wóor ni dërëmam bii fii mu ko dugal bis buñ ko bëggee daan bis buñ ko bëggee ëpp doole justice bi nag jox ko àqam mu ñeme fa investir waaye ku ñeme investir léegi du kenn ngir lan waa jënd yaayam a nekk tribunal baayam a fa nekk wallahi boo ko joxee sa alal da koy lekk te lam la daan wax ca mbedd ma naa la dinaa la tooñ dóor la waaye dana lekk sa alal ba noppi tëj la ci kaso bi loolu lu ko waral mooy ñàkk adala ñàkk maandute waaye wallahi bu ñu fexe woon ba maandu am bul di kenn employé bul di kenn dund bu yomb bul di kenn lenn jëlal maandu rek teg ko ci kaw jamono lépp dox boo jëlee maandu rek léppay tegu ci aw yoon waaye bu maandu ñëwul wallahi dara du baax kon nañu defaraat suñu attewukaay yi waaye nag lu jafe la ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ni atte ñett rek la ñaari xaadi ñoo am segam foo bala jafe woon nag masa léegi ñaari attekat ñu ni ko ban ak ban ki xam dëgg di ko atte day dem àjjana bu ëllëgee ki xamul dëgg tey atte day dem safara ki xam dëgg te du ko atte day dem safara kon ñaar ñetti xaadi yëpp benn ciy dem aljanna mbokk mi lii bu amee kon lu jafe la lu jafe la te atte nag maandute mooy lan mooy atte boo xam ne ñëpp a ci yem waaye bi nu tubaab yi bëggee nax dañ noo wutal ay catégorie kii kenn waru koo tëj ndax député la ndax ministre la ndax nangam la daa waroon a fekk nga ñi mee garanti ni du tooñ waaye tooñkat bu amee noonu doole musiba am na ko àgg ci am grade boo xam ne boo ko amee kenn du la tëj alors ah, de wuute nag Seydina Aliyun karamallaahu aw mi nekk amirul muminin benn yahud bokkut ak moom diine kalaame ko ki koy atte di xaadi joo xam ne moom itam jullit la wala wara a ragal Aliyun ndax mooy amirul muminin ñu ànd taxaw ci baar bi kooku tiit na ba da doon bëgg a jox Aliyun place bi mu toog ah Aliyun gàntal waaye teewu ñu atte lu ñu doon atte Alioune daa gis yëppam ni maako moom muy buubu koomam yoxóot bee ko yore yoxóot bi ni maa moom ñu ñëw ci attekaay bi ñu wax seenu atte ku nekk wax saw lay sura yi mi nga xam ne mooy xaadi ji ni imam Alioune ana say seede nga xam ngeen jàng ngeen ci atte bu yàgg da ngeen ci jàng ba tàyyee ni nee na euh, nu mu ko tuddati al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar xaayida bu rëy la bu ngeen jàngoon mu ne ko waaw ñan ñooy sa seede ñu fekkee ni ñu la mën a seede ni yaa moom buubu kom mi mu ne ko ñaari seede daal laa am euh, sama doom laata ba mu tuddee sama doom rek la ci génn mu ne ko ah sa doom gëm naa ni mooy sayidu suba bi ahlil janna yonentu nee na ñooy sangi àjjana ñoo yore sangi sa waxambaane ya waaye taxul ma nangu de ndaxte li ma jàng ci sariya mooy doom du seede doom du seede baay baay du seede demal wuti keneen mu ni ko loo rek laa amoon ci seede di aw ma ñeneen yahut bi daal di yëngal bopp bi daal di wallahi diine ji atte lii tey dugg naa ci ashadu an laa ilaha illallah yaa moom mbubu mi ndaxte diine ji waral na laa gënal ci sama kaw ndax yow ay amirul muminin waral na laa gënal ci sama kaw ndax jullit nga waaye loolu yëpp tax mu maandu ci suñu diggante maandu googu tey dinaa wax dëgg dëgg gi mooy lan yaa moom mbubb mi Aliou ni ko dinaa indi teraangay lislaam may naa la mbubb mi haada huwa al adl ndax maandu te xañ na waa ji li mu doon wut mbubb la bëggoon am na ko ndax maandu te xañ na Aliou li mu doon booy dëgg am na ko kon maandu te kese ci la ñu mën a dundee ci mbedd mi kenn ku nekk i tëdd di nelaw di yandoor ak a jóg te dara ca fekk waaye waaj bu jëlee sa ñàkk nga de xanaa du diw diw de moom tribunal bi xam na ko lépp addina tukki na de bu pays dootul développé abadan amal lu ne na or bi bari na essence bi bari na lépp bari waaye bu fekkee ne am na ku ko mën a lekk tëdd ca tëddee su ko jàpp wallahi amatul benn njariñ yéen a ngi wax naan réew mu am pétrole réew mu nangam réew mu nangam ñaata réew a fi am géeju pétrole ba noppi ndóol ñi mu ma tudd tur waaye xam ngeen ko géej bi ba noppi ndóol adaala moo fa nekkul bu fa maandu nekkul dara du baax kon maandu te ñii dagaan sunu jëmm yi nañ ñu dig maandu nañ nu dig maandu buñ ñu dig keeb yomb buñ ñu diggee maandu rek keeb dina yomb buñ ñu diggee maandu li nga bëgg lépp dana am bu fekkee ni taxawal nga maandu premier até nga teg ko sa bopp ana président France bale passé wu nekkul ci kaso bi ab atte ko fa yóbbu ndax atte wu ñu président Amérique te ñooñu ñoo sut ci réew ma gën caa ëpp garaat loola moo waral tey yow mi nga def sénégalais boo diggoon New York bu le peeg yaa ngi def dëgg mën ngaa gëm ni deesu jàpp mukk ci àddina peeg yaa ngi ci dëgg kan ci sunu réewi Afrique yi nga xam ne maandu néewu fi ku ci mën a waat ni du ma dem ci kaso bi ku ko man kenn mënu ko waaye bu adaala amoon yow mi jub man ngaa waat ni duma dem kaso mukkule ndax xam naa ne li koy yóbbu nit du ma ko def waaye bu fekkee ne fenkat mën na faa am nag réew mu fen dagan man laa dóoral man laa taqal dinaay dégg ci atte yi loo xam ne dafa reelu ñu ni dañoo euh, diw ak diw dem na pour ñu taqal ko pour ñu sarse ko la ilaha pour ñu sarse waa ji maanaam pour fenal ko ba mu mën a dugg lii réew muñ koy dugg te asamaan wàccul te asamaan wàccul àddina tukki na loolu dafa war a tukkal àddina wallahi Mawlana Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu bu njaboor gi ma masaa am problème buy at dem ci attewukaay ya doonte gëmul boobu atte buñ ko tàggoo dara naan rek boo demee waxal dëgg fa kun ma al xaq waxal dëgg rek boo waxee dëgg ak lu ñu la mën a atte sa yoon néewatu ja ëllëg yàlla day attewaat yàlla fekk na booba am nga dëgg ki am dëgg rek nag moom la yàlla ya faral yal yàlla farak nun yal yàlla teg ci yoonu dëgg te yéen ñii di bëgg a falu wala yow mii di bëgg a falu nga la mbokk li ma lay dénk yow président de la république doonal sénégalais doonal sénégalais bul am raison bul am département bul am aw xeet bul am tariixa bul am diine waxuma ni bul ko gëm waaye sa liggéey bii bu ci loolu feeñ bul am not not mooy lan ma de damaa soxla woon barab sàngam xam nga fa kennam mu ne waa xaaral ma bindal la këyit wallahi bu meloon ni bitigub jàllo bee doo ko bindal këyit da ngaa gëm ni waa ji du liggéeyal ku mu xamul du liggéeyal ku dib xaritam te kat dañu woon day liggéeyal réew mi waaye balaa def dalaa xam njëkk dikk ni damaa soxla nangam am nga ci droit mun la yowee kan ku la fi yabal ku la booleeg man. demal ci magasin bii rek ci essence su Alaaji Sagar Gueye bi nga taxaw fa ba xam sa euh, ensaayé daañu la wax ni ndax suñ Seex Gueye la booleeg nun duñ la ko wax de dañ lay jaay nga dem ndax looloy seen métier yow fonctionnaire bi noonu nga war a mel këyit wi ñu teg sa kanam rek xoolal li ci yell nga def ko mu ñibbi nga def ko mu dem boo ko defee noppalu boo ko defee amu tagg tey ak ëllëg dinaa joxe benn misaal du woon sama aada waaye damay joxe benn misaal ci benn fonctionnaire bu ma xam te ñi may dégg ñëpp duñu ma jéppi ndax danañu xam ne noonu la demee ku ñu wooyee Serigne Abdoul Ahad Mbacké ambassadeur ambassadeur la at yi mu ko def yëpp laaj leen ku mas dem Judda wala ku ma sa dem koy fekk ko fa abadan amul sa tànt bu ñuy toog wala ngay wut ku la ku la ku la yóbbu ci kanamam du am li nga soxla daal këyit wi nekk ci kanamam bu dikkee dina ko signé bu la nee altine la boo fekkee mu wàcc demal këram këyit wa yóbbaale na ko ngir lan dafa xam ne sénégalais lay liggéeyal liggéeyalul tariqa liggéeyalul diine liggéeyalul am réew liggéeyulu dara réew mi rek lay liggéeyal ku ci bokk-bokk nga ci loolu yi nag nan ko def suñu bopp yow mi di bëgg fal defal mi réew mi sam réew la ki la ci wateeloon ak kila la saaga woon ak yi yi ñu soxla ci yow yéen a ci yem bul ni mukk dëkk sangam dañ ma maa woon wala diw ñoom dañ maa kontoroon wala nangam dañ maa kontoroon déedéet dañ laa war a kontor ndax ba ñu ko tuddee tànn nga war a xam ñëpp duñ la tànn waaye loo doon xëccoo da ngeen ni damaa bëgg a defar réew mi waxoo ni bu ma faloo ñi ma fal dinaa leen defar nangam waxoo ko woon wax ko rek boo ko waxee doo am de waaye da dinaa defar fépp léegi falu nga nag say bokk kontaan fecc re ndax dañoo xam ne nëru laa maandu bu bokk yi kontaanee li muy tekki mooy di nga leen faral danga leen làq kooku kan wane na bu yàgg ni tàcc yiñ ko tàcc moo wane ni maandu wuñu te wallahi xam na ni gaa wu maandu xam na ni gaa yu maanduwul dañuy wax jamono bu nekk ñu ne président yi day du ñu xam li xew ci réew mi man ko ah kay ndax nekkoon nañ ci réew mi ba muy doon gouverneur reesoo tàngam bu kilifa yi daan ñëw day defal yoon wi muy jaar peinture garab yi takk cay drapeau mu rafet bis boo doonee président jaar fa na la waa ji nga daan def la waa ji def na nga daan def la waa ji def kon yéen yëpp xam ngeen ni da doon tappale maanute mooy yorum réew lu nu mën a def te du nu maandu na la dara du sotti nanu am milliards yu dul jeex nanu am lu nekk waaye bu fekkee ni al adala néew fi wallahi moog dara ñoo yem kon nag mbokk yi fa aleykum bil adl nañu maandu ci sunu borom subhanahu wa taala nanu ragal yàlla ci jaam yi nanu yemale jaam yi ci seeni àq li nga xam ne ñoo ko moom nañ leen ko jox barki boo Ndiaye amul benn président bu ñuy wax Ahmadou Najadi réew mu yilif ndax amul pétrole mu kay ndax amul jamaa axa kay lu ne la am ana Ahmad Najaabi tey ma nga ci àll ba yor ay botam di sàmm di sàmm journaliste fekk ko fa ni ko waaw lu tax nga nekk ci àll bi àndul ak benn garde corps mu ko lu ma koy doyee ñu nga ah, kilifa nga di mu ni dee de doonatuma kilifa te réew mi ma yoroon sàccu ma seen dërëm tooñu ma seen kenn te turu ma dereti kenn kon sañ na maa nelaw fii man ko loolu la Omar waxoon de Omar ibnul Xataab day keroog ba délégation Faris ba ñëwee di laajte kan mooy amirul muminin ana pale ñu joxoon ko ay kiir tindiñ ni foofu la dëkk ñu ne anamu ñu ne ma nga nele ca penc ma ba mu dikkee daf koo xool xam nga ñooñu ay xakki xikma xakim xikma la ñu bari doon mu ni ko adal tawanamt wallahi nelaw ci penc mun ko waaw mun ko maandoo ko teg maandoo tax nga nelaw ci penc moo tax benn boroom xam-xam noona maandute mooy sécurité boo ñàkkee maandu daal di am ñàkk sécurité ni sa garde yi bare ni sa motaar yi bare ni fital yi bare wër la noonu la sa caay-caay toll waaye wallahi boo maandu woon am na ku la ëpp mbooloo fuuf ci réew mi buy jóg genn fital du ko topp lu ko waral al adala kon li ngeen nuy dig lépp bàyyi leen ko te dig nu maandu bu ngeen maandoo rek ñépp dox